Nous yakar bu baax ci positionnement positionnement central ñun dañu jappé suñu la première force citoyenne bi nga ne transition bi moy le Sénégal nous ci loxo mu yi ni dem ci loxo citoyen la bo xamné lenn rek Sénégal fexe ba Sénégal toll ci réewu Afrique yi nga xamné ne ñoo gën a ci kanam suñu programme nek na ci programme yi gëna bax ci Sénégal makoy wax diko waxat té ñun paré nañu def ay def ay débat li am kañ moy tay foog naa ne xam ngeen ko def nañu ben tirage au sort buma sañon nak tirage au sort bi ñu ñëk ñu ñëk genn ndax ñun ño ñëk déposer suñu caution té façon nañu yéné

Euh, juróom fukki junni yi parrain duñ ko mën a dépasser loolu loi bi lay doon wala buñ ko dépasser itam du bari waaye nag ah neexul ba neexul waaye am nañ doole te ragal nañu ne ñooñu bu ñu xasee ba jàll li des desati xëj na du bareeti ñun ñooy ñi mujj juróom euh, ñaar fukkeelu ak juróom list bi nga xam ne moom la ñuy tab euh, saytu gannaaw bu ñu saytoo ñeneen yi ñëpp. Nous sommes wax sénégalais nous ne nous. Nous ni mu sommes ñun ñi nga Nous des cautions. nous sommes ay caution gens qui pour euh, taxawal liste gis ngeen ni ñun tirage au sort bi tous am nañu ne bu ñu nekkul tous ñëk génn ci élection

opposition responsable lañu opposition citoyenne lañu ñun ŋañiwuñu kenn ñun dañu am suñu xalaatu bop paré waxtaane ko ak ku ko neex ku mu neex na ñew amul kenn kuñ ci ragal amul kenn kuñ ci beddi waaye nak dañu ne buñu gagné itam ñépp lañuy andal àndal liggéey bi te itam nekkuñu pour di daxante ki mën ko mako ko mën tay na ko dóor dinaa duma amatuñu temps à perdre ñun liggéey lañuy ñun liggéey la ñu bëgg te dañu yàkkamti nag ci liggéey bi may wax xale yi tey ont xam-xam yi ñoo fi ne ñëwuñu ñëpp sax mais am nañu yaakaar ne ñeneen borom xam-xam sax dinañu ñëw yokku ci li fi ne ñu ne ndaw yi assemblée nationale bu leen ci am benn benn njaxare di ngeen am nous xam-xam di am boroom expérience ñu tette leen ndax nag duñ leen dugal noonu rek ci assemblée bàyyi leen noonu ngeen di ngeen di débrouiller déedéet dañ leen di dañ leen di tette te buñ leen tette ba ngeen dëgër ñu bàyyi leen ngeen continuer ñun ñu dem noppalu ji. kon man mun naa wax ne jeunes yi ñu jar a jàppale lañu pour ñu ëllëg si biir ñu gaaw a jiite réew mi parce que nag réew mi réew mi tey dafa laaj lu gaaw dafa laaj itam.

premier gouvernement de transition bi ngeen gis di ngeen ci gis ay jeunes waaye bu lolou wesso itam am nañu 2024 président de la république ci ñun lay